moo de mi ngi si wetu juma ji waaye boo fi agsi da nga naan mënta nekk xoolal fii gas-gas yeeg ndox yi tali bi dañ koo dagg li ko waral bokk na si tuyau bu toj lu yàgg waa askan wi nag la jàpp mooy du kenn ku dul maaw rahmati mi nu jàpp nii moom moo war a defar lii waaye bi ñu ko saisiré boobu ba léegi daal dafa bank ay yoxoom woote nañ ci ku ne kun xam rek dem nañ ci yow pour nga wàllunu ci ngir yàlla ngir jëmmi borom dëkk bi fu ne lañ ci dem sonn nañ ci bay bëgg dee nag démb bi mu tawee gis nga ni mel ci la ndox mi mujj euh, ndoxu taw beek euh, ndoxu too bi mujj mu nungu kër gi. waaw too ndox la. voilà woo ngeen Maawu Rahmati. woo nañ Maawu Rahmati woo waa ca kanam woo euh, Latka sàng rek jokkoo nañu ak Latka mu am ñu fi ñu fi yabal sonn nan nag jooy nañ ko fu ne moo tax ñuy pompaat nii. mais pomme bi ba ndox mi dañ saafara ci dara parce que dañoo too bi dañ koo war a defar ba duutul amati benn jafe-jafe ñun loolu mooy li ñu ñor ñun nag ay ndawi dëkk bi lañ doomi dëkk bi lañ xam nga ku dëkk même pas 100 ak jumaa ja xam ni kon ci doomi dëkk bi nga duñ fi def lenn lu lu lu dul li sëñ doxaa bëgg te loolu mooy li war yar ak teggin lañu fi def waaye dañuy ñaan lillaahi wa rasuuli dañoo ñaan bay bëgg a dee pour ñu saafaraal nu lii ndox nag jël na ay kër yu bari yamul foofu de waane dafa sax nag tax ndox bu nu naan amatu fii lu ko waral mooy pan bi dafa am doole ñii di koy seddee. koñ bi amatul ndox amul robinet bu fi xelli sunu waajur yi ak sunu soxna yi dañoo root bay bëgg a dee. loolu nag jooytu nañ ko fu ne màggalu sëñ Abdou Khadir aussi màggalu tubaa gi ñëw ak ndigal li sëñ Mountakha joxe nga am bi ñëpp ay ñëw léegi nag ñu bëgg ku nu ko saafaraal jooytu nañ ko fu ne lii dafa metti lool. mel na Euh, kër yu bari la nangu ba seen kër borom dañoo génn xooli fu ne loolu ñaaw na trop métti na trop. ñoom nag nee nañu kat seen xeex dañ koy def si njëkk ak teraanga waaye nag dinañ dem seeti kilifa yi wax ak ñoom ngir ñu mën leen jàppale. naka noonee bi ko maire bi yëgi Abdou Lahad Ka yabal na fi benn camion citerne ngir nag ñu mën ko manque ginnaaw bi mu jàppee ni sax lii bokkul ci compétence ci beneen wàll sapeur yi moom it mi ngi def la mu mën ngir ndox mi jóge fii Babacar Samb Touba Africa